nuyu supporters yi ak ñi nga xamante lay bëggee ñu fekk fii sa entraînement ci nga nekk ah, ah, bàyyi nga nuyu supporters yi nuyu képp koo xamante ne seen waaw salaamaaleykum rahmatullah ñu ngi nuyu ku nekk si tur ak sant di nuyu mbokk internet yi di nuyu doomu dëkk bi di nuyu yéen ñi fi daje ñëpp monde presse bi yëpp di nuyu ak suñu ku déplacé wu ñoo taxaw fi ñu lay nuyu di jaaj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 ni ngay bëri ak Tonnerre le 7 novembre 2010. Mhm. keroog moo la bëreel combat préliminaire digganteem ak SOS euh, 3. mu dem ba fekk la ci kaw booy bëri ak yow. kooku euh, booy bëri ak moom tey nan nga ko war a mën a waajee carrément ak euh, ndaw bi mu ne moom la doon ak importance bi mu jox boppam. waaw ñu ñëpp ay ndaw la ñu. Mhm. te it amul amul amul amul. Siteu dafa prouvé ba egg fu mu war a war a bëre ñu muy bëreel Siteu dafa prouvé a bëre ñu mu egg si dafa liggéey moo ko fi indi amul leen la fi indi bu ma bëreeloon troisième loolu amul sens li am sens mooy mi ngi def résultat am na ñoo xamante ni euh, génn nañu xamante ni leen ko fekk te ngi si kaw loolu amul sens li am mooy tey jii Siteu liggéey na liggéey naa ñu liggéey ba tey bokk suñu ay combat bokk si combat yoo xamante ni ay combat yu mag lay nekk waaw loolu sant yàlla la ko waaw ñu nga ne ko euh, gën gën naa la ñeme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 koo xamante ni ñun suñ xel day am xel ñaar si yow képp ku ñu làmb booleel bu ñu duggee si géew ñu def fulla ak fayda si moom mais bon di wax rek li ñu gis moom lan gis rek ñu wax ko après fini te am nañ temps amoon na un mois pour mën a préparer amul leneen amul leneen waa da nga gis ne li war a nekk ci moom carrément nekku si am ah, mi ngi liggéey ah mi ngi ay mi mi ngi liggéey ah loolu daal laa ci mën a wax mi ngi ay coacham mi ngi liggéey waaw mu ci am laaj keneen yaat ma wax say supporter ama ci liñ lay xaar seen xel bu baax a baax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 xëy na ne euh, sama combat am Ama Baldé wala Lac de Guiers naa entraînement boo xamante ni boo simee ko nit ñi dina ne gongo te au li nga war a am amoo ko waaw man je bien amul lu may leem laam laamee wala dara je me sens bien ñu bëri jàppoon ne taa bee tax nga daan juum non taay taay sama combat ak na ma sama combat ak Lac de Guiers 2 la bële confiance ak surpoids aussi. tarkindaa yi ku ne xam ne seen digg Modou Lo barki dem def nañu benn ci ne li Modou Lo lebal Siteu li mhm. Siteu lebal Modou Lo Modou Lo fay ko ndax tey Modou Lo ku ne xam ne ni moo nekk si ginnaaw sës ci yow rek ku ne xam ne ni Siteu fu mu taxaw danaan Modou Lo suma xarit la moom laa bëgg nangam ak nangam. mbokk sax dafa dox seen diggante. waaw mbokk diggante. moo tax affaire Modou Modou dañ ko génne ci combat bi su ma doon bëreeg Siteu du tey ñooy nekk.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 Modou Modou dugg ci géew bi Papa Sow ak Siteu ñooy bëre. da nga jàpp day wut wàllu. kooku la Siteu. ah non loolu yaa ko wax nag en tout cas daal maag Siteu daal ñuy dugg ci géew bi incha allah le premier waaw. mais dina saf sap de. ah ah loolu yow it tamaate loxote loxotee koy jeexal. Ah. waaw waaw dafa am lu may laaj benn question bu daw. muy sa diggante ak Siteu. Mhm. mais mbaa xam nga ni am na lu lay xaar. waa ci wàllu point mort nga taxaw. waaw sa diggante ak Siteu. Mhm. yow yaa war a nekk professionnel lu Siteu. Mhm. di magam. Mhm. am foo toll ci làmm. yàlla dogal tey nga am Siteu. est-ce yaa ngi éviter sa diggante ak Siteu tey mar taali bu safaan amoon. waaw loolu ñaan ñu ko yàlla. fi jëm daal yàlla ñu si yàlla defal sutura. si ndam. bon làmb nag espoir moo toll si lu mel noonu. tey Messi dama woon ba yaakaar ñàkk espoir. yàlla defal ko sutura defal ko ndam nu rëy ba ci dem mais pourquoi pas Papa Sow bi ma siyaane mas yi man a gis sama bopp dama ne dama siyaane nii pourquoi pas falaa nat sama bopp quoi wax dëgg yàlla waaw dama xam ne moom euh, dara dara daal dama yàpp ni hmm. euh, le premier yàlla dina ma may ndam quoi insha allahu rabbi man loolu laa gëm quoi bokk ngeen ñaari adversaire yéen ñaar hmm. kenn ki euh, da nga koo moom mu ñëw daan ko muy digganteem ak sa diggante ak sos da deux fois moom mu ñëw kawoote sos mhm. nga daje ak booy sëy mhm. daan booy sëy moom mu daje ak ki nga xamante ne mooy booy sëy booy sëy daan ko mhm. loolu ban jàngat nga ci mën a defal papa. ah amul jàngat làmb la rek bëre la rek <laughs> bëre la rek amul jàngat amul jàngat noo bokk ñëpp ay adversaire di bëree ñii dañuy daan ñii ñee daan ñële amul benn problème man ma ci loolu mhm. li xool mooy man su ma fi yeewoo su may nelaw lépp maa xool adversaire bi ma jëm la premier ci laa nekk ci laay focus quoi mais depuis 2013 papa amul victoire waaw 2013 ak léegi nga a def sa première sortie léegi nag yàgg na mais deux combats kese laa ci bëre mhm.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 loolu laay def incha allahu rabbi la nga waxoon ba tey yaa ngi ci yaa mën yaa ko dàq bëre daal moom moo ne moom moo ne maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex nga ne ko dama lay daal incha allahu rabbi ba tey yaa ngi ci question boobu ba tey incha allahu rabbi si kàttanu yàlla incha allah loolu laa gëm loolu laay doxe ci loo ko teg ah ci subhanallah siyaar rek laa ko teg moom yow maa lay siyaare bu dañu gis ne sa combat yëpp da pare mais dernier réglage yi cinq minutes yeeg deux minutes si ngay perte sa combat dañu seetlu bu mel ne sa combat la de guerre boo jëliwutoon la de guerre bi day niin est-ce que làmb la parce que ñii da leen di jëli daan leen ñi nga xaar leen daan leen ñi nga dajeeg ñoom. waaw yaa ngi veillé si combat bi sa digganteeg si. waaw loolu loolu laa la loolu laa doon wax léegi. xam nga entraînement moom da nga euh, pare mentalement je suis prêt da ngay dégg gars yi xool mooy entraîné nga ba pare mais moral moo ëpp lépp te tey jii euh, yàlla boole ma ak ñi ñoo xamante ni moralement je suis bien waaw je suis bien moralement combat bi dina utee si ak combat yi fi doon jaar incha allahu rabbi si kàttanu yàlla mhm. waaw dañu gis nañu sanc écurie ñëpp tamit ñu ci mel ne ay ñoom DJ wala ñi nekkoon ci yenn écrit ba pare wuy ji ci yeneen dañu am victoire est-ce que Papa Sow fee na ci loolu tamit ndax pare na ci loolu. ah alhamdulilah yàlla na yàlla demee noonu rek yàlla nañu yàlla ubbeeg ndam ak ndam lu rëy a rëy rëy incha allah rek loolu ñaan yàlla. waaw fi muy daw seen affiche. ah. seen affiche point com. seen affiche point com. système rek di profité di woo képp koo xamante ne yaa ngi ci appelé Papa Sow commencé ko tey sunu président écrit muy père di ko di woo tamit autorité nga nekk parcelle. muy Moussa Sy le maire muy sunu euh, son excellence honorable Amadou Ba ñoom Moustapha Kane Guèye l'original ah Grand Badou Diouf Mbathio ah euh, Go Faye ah, ku lim daal di nga juum képp koo xamante ni daal les zones urbaines mooy grand maa ngi woo ñëpp président ASC yi di woo ñaari président zone yëpp leen wax ni daal ñun ñu ngi seen ginnaaw di woo suñu Parcelles Assainies yëpp di leen jaajëfal koy wax ak euh, supporter say euh, supporter moo xam supporter aussi. xam ne làmb demoon na ba sooxee. làmb amuñu lu làmb na gars yi ñëw rek gën a civilisé am yarak ak teggin ku ñëw làmb solo lu cher boo solo si da nga bañ sokku la taxal na gars yi rek ñëw gars yi si daan làmb. seen ay mbër looloo am solo quoi leen amul solo.